Daarul Muxti salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna man la Pape Amar Fall maire de la commune de Daarul Muxti waaw ñu ne tey dañ fi ñëw pour wax li nga xam ne démb xew na Daaru Muxti te wax ko de manière vraiment waxte yàlla rek tax ndax nag wax dëgg yàlla mbir yi suñ kanam la la la la la lépp suñ kanam la dem su man ak monsieur le maire dañu nekkoon Sarsara fa la nekk ba une heure trente du matin ak Abo Sall bi ñu fa nekkee comme waa sëñ Bara Ndiaye romb nañu xamuñu woon sax Darou Mousty la jëm bi ñu ñëwee bay tolloo kër Galas Diagne ma seen convoi bi mu nekk booru booru Pont maa ni sama chauffeur ak convoi bi ma jiitu woon nañ leen teggi ndax comme ñoom ñoo am seen gat buñ jaar ci seen biir ñu wër leen teggi leen bi ma ñëwee ma laajte président Fadal mu ñu ni ma mi ngi mi ngi mi ngi kalon di def proximité il faisait presque deux heures moins ma ma dem fa man ko président maa man ko tase naa sëñ Baara Ndiaye mu dugg ci dëkk bi ak élément passé fii te ni ma leen gisee suñ convoi bi bu tasee ñoom ci kaw tali bi man naa am coowam donc je préfère que nga suspendre ba suba ñu reprendre mu jël micro bi li mu doon wax lépp da koo bàyyi président Fadal jël micro bi wax que na ñëpp dellu seen kër ak jàmm dama ne ko sax bu ni dara xew na pour ne pas amortir la la foule euh, ñu ñibbisi bi mu ñibbisi président Fada pour bëgg jàmmam kaw tali bi bi mu demee ba tollu kër am na ñaar dafa tourné jaare ci ëkk bi ñëw gaare ay oto ñun ñëpp ñu gaare cinq minutes après yow une poule de jeunes daw ñëw ba ci pharmacie bi ñuy dagg ay saagay ndey Ibrahima Sarr ma nga foon Ibou Naar ma dem ba ci moom ma ne ko maa mën ko calmel booy yi parce que ñun ñoo bokk dëkk Darou Mouhty te waruñoo ñëw ba ci kër gu kilifa yore mbokk ne mel ci dëkk bi ngeen taxaw di dagg ay saaga lii mag ñi nekk seen ginnaaw di leen ko defal ñoom ñen mun ko ne xale yi dañ dal fa nekkoon ñu saaga ma wax ma lu lu bëgg a wax ma wàññi ko waat ñëw biñ demee ba ay deux heures xaw ay ay trois heures booy non seulement yamootuñu nag léegi ci ci ci saaga mais dañ doon continuer di sànni avancé ba buntu kër sëñ Sall ci la nag xale yi nga xam ne Modou Diagne Fada lan àndoon si riposté si seen kaw parce que nag boo ñëwee ba buntu kër nit nag di ko daggale saaga ndey te nit ko gënoo ko manoo ko rangalu la gënoo ko xam ci dëkk bi vraiment aussi loolu provocation dafa egg fu mu wër te wër te wër te egg dafa am nag loo xam ni su amee ci dëkk te daaw fa dañ ni gan ñi la gan ñi la barki dem président Fada ba léegi mi def proximité de te bërki dem man nii ku nekk gis nga ma ci àll bi tase naa ko waa Pastef ci àll bi sama oto sax ñoom nga doon puus de jàmm am ñun ñii itam fekk nañ daba wa daba wañaan député oto am paan ñu lonk ko ba indil ko ko biir Daaru Musi kon ñun jàmm ak salaam la ndox seen diggante Cheikh Bara dégg naa ko mu naan diw Daaru Musi xam nañ këram nga xam xërëm këram ma bëgg ko wax ni ko moom na xam ne fii ragal nekk fi te kilifa day wax dëgg kilifa du kàcc kilifa day wax daanu si xamante ne kenn ragalu fi kenn ñun ñëpp a bokk koo fi xam kër ndeyam ak kër baayam xam na sa kër ndey ak sa kër baay dañ mooñ nag ci ndigal ak ci borom dëkk bi ci kilifteef ñu nangoo nekk ci kilifteef mais fii kenn ragalu fi kenn. élection yi jàmm salaam la président Modou Diagne Fada woote jàmm salaam la ñuy dox waaye nag ragalul kenn loolu il faut mu leer li nu waree nag ay naan danoo kar bata beeg loolu dara du ci dëgg lii ma leen keneen bu leen wax lu lii li muy wax amul. voilà di wax ni dëgg naa Cheikh Bara aussi mu ni dafa am benn femme bu ñu kidnap kidnappé dugal ko si kër gi. foofu aussi il faut ñu leerale li ci xew benn jigéen la boo xam ni dafa encadré masque wu yor sac à dos ñëw di saagante suñu booy yi ñu bañ booy yi gaañ ko. yi jël ko indi ko ci buntu kër gi mais à notre grande surprise bi ñu ko bëggee dugal ci kër gi. ñun ñoo taxaw ne leen kii xamuñu lu nekk ci saagam te xamuñu dafa mën dugal lu nu gaañ wala loo xam ne mystiquement sax mën na lu atteindre parce que on ne sait jamais Sénégal la nekk. ñu ni ko kii du dugg ci kër gi ma booy ubbi saag bi luñ ca fekk boo yaa ngi nii fekk nañ ca paaka fekk nañ ca pompe ak gaz fekk nañ ci li ñuy defalee cocktail Molotov Molotov yooyu yëpp femme bi indi na ko kër Modou Diagne Fada il a fallu que garde corps man a ànd ak seen kii pour man a évacuer xale bi mais sinon kon leneen mën na faa mën na faa am. beneen mbir bi war a ni ñun jàmm ni woo mais gendarmerie man wo monsieur le woo na ko man woo naa ko kilifa la ñëwi moo wax lu dul dëgg te bi ñu koy wooyee une heure trente matin ak une heure cinquante du matin yoo xam ne woo nañ ko pour wax ko ni ko kaay wax ci lii parce que lii du jur jàmm ñoom nag attaqué woon nañ gendarmerie ñu ni déeta waay ñu attaqué la mairie ñu ni déeta kër président Modou Diagne Fada suñ ko lakkul ca événement yi c'est parce que détermination jeunes yi wër Modou Diagne Fada moo tax mais kon ñu taal ko tey ñu ñëwaat lu ëpp nag tuuru moo tax nag ñu wax leen il faut arrêter il faut arrêter la manipulation fii Sénégal la nekk kenn gënu fi kenn kenn ragalu fi kenn koo fi menacé mu menacé la kenn ëpp fi bokk kenn loolu daal la bëggoon nit ñi xam ñoom nag